yaan ndax Mantoulaye ci bundooy li yéen kay xëy fësal euh, laata nag ñu dala Pape Mante Mboup ci tàggateeram am sutura yaay sutura sutura googee Dakar Times ne mooy fas yéen a ci réewum Sénégal ne mag muy summeeku di teg ci kanamu ay gone ñàkk sutura gu metti moo am ci réewum senegal moo tax it yéen kaay bi ne ab guerre dëgg la Sénégal nekk nag ngir xool nees def nag ba sàmm sutura gi fi nekkoon fi mu ne nag ci réew mi gañe ko du yomb de ndax nag ku joteeg nit la nga ko bëgg fajee moom mooy xaawi suturaam xool la mu am ci loo xam ni boo ko génnee loxo dar gémmiñ nga daal di koy wane mu ne fàng direct news ne waaye nag vidéo bu gazeli bii ku lii wax la ca des procureur moom lan lay xaar ngir ubbi ci ak l'enquête ndax nag boo seetaanee vidéo bi dëgg-dëgg da ngay xam ni Bougazelli ak ay enquêteur dong ñoo toogoon ci oto bi bu ñu nag génnee vidéo bi dañuy wan askan wi ne dëgg-dëgg Bougazelli dafa def loolee waroon naa jar ñu ubbi ci ak l'enquête ngir xool lu Bougazelli def ak lu mu deful waaye nag lu génnee vidéo gi Thierno Alassane Sall nay ma ne géerug vidéo moo am ci mu senegal lu waaye xamal moroomam ni ko daj ñëpp gis ko libération ne moo ne li ngeen ci xamul mooy ñeent ci ay vidéo waa section recherche ko bugg a zelli te loolee ak juróom-ñett ciy foto boole nañ ko ci dossier yóbbu critique yéene kaay ne wax ji wax ji mooy vidéo bi liwaat na l'enquête bi ci bugg a zelli def naam deful vidéo bi leeral na ko lu ñuy xaar critique ni vidéo baa ngoog source aanee yi moom bugg a zelli day ay awokaam dañu ne ko bul ci yey bul ci yàbbi noppil pat tribune yéene kaay ne gannaaw bugg a zelli day yeneen ciy député daal nañ leen di tuumaal nee ñu nag ñoom ay passeport diplomatique lañ doon jaay googu yëpp nag joxoñ gaa nga ci assemblée nationale professeur Ngouda Mboup ci tribune yéene kaay ne kenn munta nag xalaat ne war nañ mën a nag étouffer mbir mii pour patam patamee ko rek nëpp nëppal ko mu tàbbi professeur Ngouda Mboup ni mënta nekk ak fi réew mi toll Alioune ne affaire bii nii dëgg-dëgg neexul ba neexul waaye moo gën a garaaw mbiruk faux yi libération ne coow la nga xam ni moom ci scandale bii ci wàllu passeport diplomatique di leer ndax benn xale bu jigéen di umm daal dinay xam ni ci bureau ci assemblée nationale la ko député bii di El Hadji Mamadou Sall ne ko versé Condé 4 million ngir ñu mën a tàmbali procédure bi ñeel la moom it keneen la daat ni Sadio Dansokho président bu conseil départemental bu Saraya moo ma daal di xamal cib téléphone ne day trafiqué moom it visa daal di may présenté Condé Ngamet mii ne man Guinéen laa waaye Condé moo fexe ba ma am carte nationale d'identité Sénégal ne député Benno Bokk Yaakaar yii di ma ma du Sall Boubacar Biaye ñoom ñoo ma daan dimbali ngir ma am ay passeport diplomatique Sadio Dansokho moom sama collaborateur la woon kon de ko wax de ay miiru ñu ngi nag tribune yéen kaay ne bañ ko laajee lan moo waral yeexte gii ci dindi malaanu kiiraay député yii dafa ni benn lenteur amu ci laa wax bés bu jotee kenn du protéger kenn wax su populi ne waxtu wow ndóol gi moom ma nga yokk ci réewum Sénégal ndóol nañu waaye nag nguur gi moom yéen kaay bi mi ngi def kéemtalaay kàttan ngir wan askan wi daal ne ndóol amu fi gannaaw chiffre ANSD yi nguur gi génn na yu bureau bu prospective économique ñooñu nag jàpp na ni réew Sénégal diggante 2011 ak 2019 yokkute moo fi am Moubarak Lo ak ñamu àndal ne yokku gi daal maanaam ñi génn ci ndool am na ci téeméer boo jël fanweer ak benn tribune yéene kaay ne Muniru Njaay économiste moom lank na yooyu la chiffre xam le na ni téeméer boo jël ci Sénégal juróom fukk yi ak juróom benn dañoo jàpp na ñoom dañoo pauvre dañoo ndóol ñoom Moubarak Lo nee nañu loolu amul Le Soleil yéene kaay ne Macky Sall moom ma ngay doxal rek président de la république daal daal dina inauguré hôpital bu yees te diwaanu Touba l'hôpital ba ñetti téeméer ci ay lal am na ko fukk ak juróom-ñett ci ay service ñaar fukk ak ñett ci ay milliards mu daal di ko cay dàbbali ngir assainir Touba réew mi ko di jeenee Macky Sall kay jamono ji ma nga yaggaayoog di dose président nag def na la ko waroon ca diwaanu Touba Serigne Mountakha moo taxit nee na ko yow président Macky Sall dara laa ne ma ne dara mbënta yàq suñu diggante gi vox populi ne ma ci coowal kilifa gi ak Simon gi ñoo lànk ña ngay dal ci kaw juge ña ngi leen di xamal ne nañu des nag ci yoon jubal te juble ngir nag sooy astuut si li desoon ci yoon réewum Sénégal ngir mu suux libération yéene kaay ne moo ne loo ci xamul day waa division des investigations criminelles ay éléments yu doy waar yu dëgër la ñu yor ci diggante Simon Thier ak kilifa mi juróom-ñett nag ci ay bomb daal dinañ koy gis ci téléphone bu Thier bi yamul ci ñaar ñii de am na yeneen i enregistrement yoo xam ni daal dinay des ci téléphone Thier la jógee cay xaaw gi waxtu woowu moom tribune yéene kaay ne ma ko téeméeri bakkan ak fukk ak benn daal dinañuy rot ci diggante janvier ak lu ñu war a des médias bi ne ma ay adjoint au maire day daal dina ñuy dem fekki gëm sa bopp ak Bougane Gueye Dany moom Bougane Gueye yéenekaay bi di ma xamal ne daal dinay nag tàmbalee dogot dogotee parti Macky Sall bi ca ci loñ ak ci tubaatul daal dina fay jël seeni adjoint au maire andi leen ci mouvement gëm sa bopp ci élection locale yii ñu daal jëm ci diwaanu Mbour am nañ seen candidat Saliou Samb lay daal wuyoo fukk ak juróom ci parti libération ni ma ñoo ko daal di samp waaye itam ay mouvement ñoo sàkku nag moom Saliou Samb mi ñu tabb bu diwaanu Mbour rafetlu na tabb gi nga xam ni fukk ak juróomu parti yeeg mouvement yooyu tabb ngir mu jiite Mbour ndaw lu neex ca Médina le quotidien le ne gannaaw Seydou Gueye ak Cheikh Ba parti socialiste day fas yéene na fa am candidat Sud Quotidien ne ma laalal basket ma xamal la ni Sénégal day daal dinay am ndam lu rëy ci diggam ak Guinée Afrobasket 2021 la ca Yaoundé téeméer la Sénégal am Guinée am fanweer ak benn bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat nañu jëfandikoo gel yi di takk masque yi waaye itam di respecter distance un mètre leen ak basket féminin borom jam city ak Dougar Yaoundé 2022 euh, Sénégal Égypte tey ji 13h. waaw tey ji ci ngoon nag ñu jàpp ne jogante gu am solo nag moo war a dox diggante Sénégal ak Égypte ñaari équipe yi nag li ko waral mooy euh, Sénégal ak ñoom nag ñoom ñoo bokk équipe bi nga xam ne daan nañ ko ci seen génn gu njëkk muy Guinée te ku nekk nag egg nga euh, ci 100 poñ yi ba tax na nag tey ji la ñu ci xaar jogante gu am solo naam sax ne nag ñeenti afrobasket yu mujj yi Sénégal moo mujj am ndam ci kaw Égypte ci leeral ñu dem ca Yaoundé fekk fa kii di Soxna diggante Sénégal ak Égypte mooy choc groupe C bi ñaari équipe yépp danoo am ndam ndoxteel Guinée la ñu daan te ku ci nekk ci ñoom dugal nga 100 points muy doon match bu capital ngir li des ci bile compétition waaye tam première place bi ñu mën a jàpp gaynde yu Sénégal yi ñu dominé ci statistiques yi ndaxte Sénégal moo làpp ñii di waa Égypte ci ñeenti afrobasket yu ñu weesu yépp atum 2013 2015 2017 ak 2019 waaye at mile Soraya Mohamed gën a màgg ak i naataangoom dañoo ñëw ci Yaoundé am également ferme intention ngir rek dëpp carte gi fexe ba def lu gën li nga xam ne mooy septième rang bi nu jëloon ci atum 2019 am ñaari victoire ak quatre défaites waaye dinañ fa fekk gaynde Sénégal ñoom itam yu bëgg yokkamtikuwaat ci diwaanu Afrique gannaaw ñaari afrobasket yu ñu lajjee ndaje bi kon tey jilee bu 13 heures jotee muy annoncé nag bu palpitante foofu ca Yaoundé ak kii di Moustapha yi mi tàggat gaynde Sénégal yu jigéen ñi moom mi la nag muy xam le ni Sénégal nag am na lépp li war ngir nag mën a daan Égypte ni ki tey ñu teewlu ko ba tey ak Soxna Fall. waajal nañu match bi suba contre Égypte sànq def nañu vidéo xool su nu muy joué ak ndax la ñu am suñu taxawaay euh, entraînement wu tey bi yëpp ci loolu la woon stratégie bi adresse bi corriger lancer franc yi parce que on a perdu beaucoup de balle ak yooyu donc on a dëgg yàlla équipe bi macha allah xale yaa am conscience ci euh, enjeu yi et que dinañ defoon prévision incha allah. ñu ñëw nañu xool équipe sànq man ak euh, sama staff bi muy équipe bu xarañ équipe bu buy daw bu bëri bu am transition bu am beaucoup de shooters donc euh, ñaari grandes yoo xam ne dañu am dextérité bu baax donc il faut ñu jëlee avec mag sérieux pour bañ am surprise mais def naa ne nous sommes confiants et vraiment def lépp lu ñu Sénégal Égypte kon bu benn waxtu jotee lay doon foofu ca palais polyvalent des sports bu Yaoundé lu ci mënti am daal gën ak Sénégal yi nag nañu jël bu baax a baax au sérieux équipe bu Égypte loolu moo di gis-gis Ousmane Diallo moom mi la nga xam ne mooy tàggat ay civil bu Ndakaaru ni ki noonu tamit nekk directeur technique régional bi waxtu wi sax moom moo ngi ca diwaanu Yaoundé ñu teewlu ay kàddoom ba tey. d'abord damay féliciter équipe mu def prestation bu baax président bi contre Guinée léegi suñu deuxième adversaire mu nekk l'Égypte donc li ma ci mën a wax mooy Égypte dëkk basket la ñëpp xam nañ loolu am basket ainsi euh, match bi ñu wane démb équipe buy buy scoré la parce que mise en àgg nañu ci cent et quelques en plus am nañu jeu am nañu basket am nañu jeu organisé am nañu adresse euh, mais yaakaar naa ne ci wàllu défense ñun ñoo leen ëpp ëpp argument défensif ñoo leen ëpp agressivité ci wàllu défense. mais nañ leen respecté. ñu joué match par match Sénégal donc équipe boo xam ne la dafa bëri jeunesse donc je pense que match bu ñu def match bu ñu def équipe dinay màgg ndànk ak ndànk ñu bañ a yàkkamti parce que voilà équipe bu bees la mais yaakaar naa ne daal mën nañu yaakaar match bu neex Sénégal ak Égypte li ci des nag mooy ñaan yàlla Sénégal gañe jàmm ko incha ñu doon teewlu Ousmane Diallo nekk coach bu AS Ville bu Ndakaaru kon tey jii nag daanaka mooy ñetteelu bëccëg dernière journée jëm nag ci phase de poule yi ay jogante yu am solo nag fas yéene ci am ci poule D bi bu 10 heures jotee Côte d'Ivoire dina ci laale ak ñi di waa Mali poule A bi 16 heures Cap-Vert ak Cameroun la poule B bi nag 19 heures Angola ak Nigéria ak Nigéria la di fàttali nag ni 13 heures ci la Sénégal fas yéene laale ak Égypte foofu ca palais polyvalent des sports bu Yaoundé. phase nationale yi dëkkandoo door na R100 ba noppi it wuutu yaama tooñ waaw ni ki démb nag lañ ko ndax képp foofu ca diwaanu Thiès dëkkandoo bu luga kon nag moom moo jël nag phase nationale ren yi gannaaw ba mu daane R100 bu Thiès benn bal ci dara dëkkandoo sax noonu la jaar wuutu nag kii di yaama tooñ bu Ziguinchor ñu teewlu kii di Mohamed Ndiaye moom mooy nag tàggat ñii di waa dëkkandoo ak ak kii di Moussa Diouf coach su r ak Mbaytal c' équipe boo xam ni depuis 2010 ko créé boobu ba léegi la tête de la tête de l' les coupes à Louga sauf la coupe nationale aujourd'hui yàlla def na ko kon vraiment maa ngi félicité le président du club Cheikh Abdou di félicité le maire de la de Louga le président du conseil départemental ak tous les Lougatois ak mag ña ne ca ba nga xam ne ñu ngi yor course di ñaan sasir yi ñaan yàlla di ko kon ñu ngi leen remercier tous les dirigeants ak tous les supporters victoire tey bi nag man maa ngi koy dijee muy Serigne Aliou Diop kon coupe bi tey mën naa ko may franchement. di féliciter boy yi di leen encourager tamit xam ni football moo demee nii. dara maa ngi wul ils se football moo demee nii quoi les gosses joxe nañ lépp lu ñu am des fois malchance da ci am tey boo boo xoolee dañ teel a jël bit après ñu daaxee daaxee on a eu des occasions mais yàlla def ñu raté ko. des fois dañ ko daan am ba di ko concrétiser tey yàlla def ñu am ko raté ko kon mën naa ne jour sans la mais on va faire avec essayer de se remobiliser continuer à travailler. kon gannaaw diwaanu Thiès mi nga xam ne moo dal la woon yooyu les phases nationales. déwén nag ci atum 2022 bi Ndakaaru moo koy euh, dallu en tout cas lu ci mënti am daal kii nag di Amadou Kane nekk président bu ONCAV rafetlu na bu baax a baax taxawaay yooyu la compétition ñu ka kàddoom ñaari équipe yëpp mais di féliciter Defar Arsan parce que depuis cinq ans suñ ñëwul demi-finale nationale ñëw nañ phase nationale féliciter aussi ASC Dekondo parce que c'est une grande ASC aussi phase nationale yi passé Louga bokkoon na ñu éliminé ko mais euh, yàlla defal ni mu ñëwaat donc tey jii nii def naa ne football euh, nawetaan màgg na mais malgré loolu nag su ñu gisee engagement bii nii engagement population bi soutien gouvernement bi euh, aussi su ma gisee actuellement nii les principaux responsables du nawetaan depuis vingt jours ñëpp a ngi fii bàyyi seen njaboot bàyyi seen liggéey loolu moo ñuy galvaniser mooy tax ne euh, euh, góorgóorlu nañ mais dañuy gën a góorgóorlu incha allah. kon Mambay fii nag la ñuy ndarke <laughs> lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek bu 12h jotee ak Birame Ndiaye Touré 13h ak El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. yaasa ah. <laughs> yaasa di dugal ci ay teneen yoo xam ne. <laughs> jaajëf <laughs> dégg nga dégg ngeen yaa. na la accompagne rek. <laughs> jaajëf Pape Matam jaajëf jaajëfal la bu baax kon rendez-vous bi midi. midi lay doon